Euh, nanguwuñ ko trop parce que dafay indi xëy na euh, jaxasoo bi nga doon wax sànq par rapport ak ñiy saaga état en pensant s'en prendre à un parti politique tey jii nii Ba il candidat candidat déclaré la présidentielle il reste premier ministre euh, ñaari yooyu noonu aussi ñu ko jàpp ne woon compatible. waroon nañ ko décharger mu dem à tolloog tolloog xam naa dégg ne ma toujours da nga may si rien ne l'interdit sur le plan légal et même sur le moral moom moom fa la wax ji nekk le président de la république le premier ministre le ministre d'abord des autorités politiques mhm. qui ont accédé à des fonctions politiques d'abord avant que ces fonctions-là ne soient des fonctions administratives même si dans la pratique c'est la fonction administrative mooy dominée parce que ngay nekk ci ci ci bi moi je fais partie de ceux mhm. qui ont soutenu urbi et orbi partout que j'espère que le président de la République ne fera pas l'erreur Amadou Ba au poste ah, de premier ministre. vous étiez pour son maintien je suis pour son maintien tu sais pourquoi. Mm -hmm. il faut qu'il se donne toutes les chances. il faut. mais se donne non. il, faut qu'on le maintienne en poste parce que je vous explique le pourquoi. Mm -hmm. les Sénégalais ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy fal en étant premier ministre ça va lui ça va lui permettre la mu gën a xam. tey jii sénégalais yi la ñu gën a soxla lan la mais su nekkatul ci appareil bi nu mu koy xamee pour mën ko saafara. mais yeneen candidat yi newuñ ci dara. mais maanaam foofu noonu déjà euh, biaisé nañ jeu bi dès le départ. mais c' est bokkuñu. c' est le contexte gis nga ñi loolu suñu fi nekkoon ils vont faire la la non maanaam yéen a fi nekk yéen a rencontre. xam nga dañu doon wax naan même président Macky Sall quand bokk les gens applaudi. tey jii nii bu defee lu mel nii aussi après. non deful dara moo tax xam nga lan la gars yi wax maintenant ils vont Amadou Ba kii on a on a je sais pas. il aura l'opportunité d'aller où il veut. parce oui. que c'est le premier ministre. oui ñooñu duñ ko mën. mais mais waa loolu loolu c'est son avantage. mais lui bu fekkente ne dafa am activité républicaine. kenn du gis mu dugal ci politique quand il va quelque part il la au préfet au gouverneur j'arrive maa ngi ñëw ñu war a inaugurer benn route wala ñu def leneen dafay dem mais man de su doon man de li ma li ma bëggoon mooy mu des nekk le premier ministre Sénégal ça lui fii ak élection ya mu gën a am parce que c'est la pratique de l'État qui te mais chance am la de savoir Macky Sall période bi muy dem en février fan la ñu war a teg suñu et loolu nag moo war a tax sax sénégalais yi choisir Amadou Ba pour mu nekkaat président de la République parce que moom une du soxla jàng dafay ñëw rek comme ni nga ko waxee continuer continuer te nag ça ne veut pas dire day ñëw li Macky Sall doon def intégralement ak systématiquement mu def ko dina indi touche am mhm. mais moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne li Macky Sall def bokk si ko bind bokk si ñi koy exécuter xam na ni lu baax la idéem day ñëw rek yokk ko ci nga xamante ni on va pas perdre de temps parce que dañu nekk à la croisée des chemins benn période boo xam ne dañu war a commencer l'exploitation du pétrole et du gaz avec des implications financières extraordinaires et ce serait très dommage et ce serait dommageable également au Sénégal que ce soit quelqu'un d'autre que le candidat qui a été en tout cas désigné par le président et qui a un gouvernemental à tous les niveaux affaires étrangères avec les relations internationales yu mu am ministre de l'économie connu def ay formation aux États-Unis en France nekk un formateur à nga xamante ne nii am na ñi muy jàkkaarloo ay alter egoom lañ yoo xamante nii dina mën a wax ak ñoom ba duñ ko ba duñ ko nax et quand je dis Amadou Ba ah. c'est pas seulement Amadou Ba Amadou avec son équipe ñi mu àndal ñu xarañ lañu et on est très respecté au niveau international parce que on a eu de très bons ministres de l'économie et des ah, li tax opposants yi euh, di wax que ne euh, Amadou Ba c'est la troisième. Euh, pas candidat sur le troisième mandat de Macky mooy li ñuy wax mooy Amadou Ba bon nga baal ma ci wax ji ah, dafa xaw a manqué un peu personnalité. dans mesure où tey jii nii c' est quelqu'un boo xam ne fu ko Macky joxoñ fa xool même keroog seen rencontre bi euh, secrétaire national bu ma juumul il aurait dit à euh, Sall bu ma faloo yow yaay continuer di diriger Sénégal. wala loolu c' est c' mais mais je pense que mooy li ma wax sànq nit ñi dem nañ ba amatuñu lu ñu euh, lu ñu reproché président Macky Sall parce que bilan moom kenn waxu ko dem nañ ba Amadou Ba. gis nañ ko lui comme il avait dit une loyauté c'est pas loyauté tout court loolu Amadou je pense que ça été démontré ko waxu ko. il ne l'a jamais dit. mais nag nit ñi bu ñu demee ba amatuñ lu ñu wax dañuy sos. Mhm. bu ñu sosee moom lay wax li nit ñi bëgg a dégg ci seen nopp pour yàq loolu la ñuy loolu la ñuy wax maintenant Amadou Ba xam nga man bokkuma ak nit ñi ah. Mhm. ñi daw non Amadou bu fekkee Macky bu fekkee Amadou Ba moo falu c'est troisième mandat de Macky mais si tant est que c'est mm-hmm. un troisième de Macky en termes de continuité et de poursuite des réalisations mm-hmm. moi je suis d'accord que ce soit un troisième mandat de Macky parce que Macky Sall li mu fi def ci ñaari mandaam yi en en douze ans soo boolee loolu la yàlla dogal mm-hmm. li Senghor def Abdou Diouf def ko Abdoulaye Wade def ko boo ko boolee moom moo leen ëppale ay réalisations su tey bu ñu duggoon ci chiffres yi en terme de kilomètres de route en terme de euh, d'autoroute en terme de production ci ci en terme de production horticole bañ koy bañ koy ay ay augmentation de 214 pour cent bu fekkente ni li ñuy tuddee ce sera un troisième mandat de Macky Sall mooy que ni ce sera la continuité des bienfaits yi nga xamante Macky Sall tàmmal nañu ko bi mu ñëwee ma je suis d'accord que ce soit un troisième mandat Amadou Ba il est maintenu il reste à la tête de la primature euh, ngi koy xaar Euh, tey jii nii euh, bi ñu falee Amadou Ba on avait dit gouvernement de combat gars yi di xaar la euh, ñu attaqué au problème de sénégalais bi war a doon bi mujj tey jii nii ban gouvernement la war a doon gouvernement lan exactement préparer la présidence de 2024 wala s'attaquer au problème yi nga xam ne moom la sénégalais yi di jafan di jànkonteel jamono. le gouvernement en permanence bu nekkul di xool soxlay askan bi c'est un gouvernement boo xam ne nii dafa faillir. Mhm. gisuma de ci bi président Macky Sall ñëwee ak léegi. gouvernement bi am taxawaay boo xamante ni nit mën na wax ni ñi taxawuñu ci soxla ci soxla askan bi gisuma ko comme je dis nit ñi nag li ñuy faral di wax di ko dugal si bopp nit ñi mooy di nit ñi bëgg bëgg a dégg soo fekkee euh, un jeune qui n'a pas de koo xamante ni amul liggéey jeune boo xamante nii euh, kooku boo ko laajee école fu mu yem xëy na dinañ la sem waxuma ñu yem sem de parce que am nañu yem sem de wala ñu musul jàng am hmm. jom tey jii di diriger ñoo xamante ni hmm. am nañu ay maîtrise mais ba ñu jàngul tamit demuñu def uti dañoo toog di xaar état et je sais foofu président de la République Macky Sall a voulu changer de paradigme sénégalais yi xamal leen ni tous les sénégalais waruñu mën a dugg ci ay bureau toog di liggéey. Mhm. soo déggee ma ne suñu xoolee yaramu Sénégal rek xool le taux de taux de taux de croissance xool euh, la structure de dépenses fi ñu ko jëmee xool li mu def sur le plan social nga xamante mën nañ def lu bare bare bare bare cité lu bare bare bare li mu def si retraités yi li mu def si ñeneen ak ñeneen ñu xam ni le Sénégal se étant